fas yéene waxtaan ak yéen ci benn xew-xew boo xam ne dal na commerçant yi fan yi di xew-xew bu doy waar bu nit mënta expliquer muy loolu ngeen dégg ci sachet plastique yi ak loi boobu nga xam ne moom moo wàcc depuis le vingt avril 2020. ñu jàpp ne li jaadu woon mooy jéemoon xayma tënk lu fi nekk ci ay mbuus yoo xam ne ci 2015 la nekk ñaata la. lan mo nek ci ay conteneur yu yegsi lan mo nek ci ay conteneur yu wara ñew ñëw laata ñuy jël décision bi dañoo jàpp ne loolu moo waroon am su amone ñu waxtaan ak commerçant yi ñu xol xeyma diir bo xamne japp nañ ne dinañ ci mëna jéxal mbuss yoyu su ko défé 2020 exactement 20 avril ñu dugg ci loi bu bees bi nga xamne ne kenn dootu ko indi kenn dootu ko défar waaye lolu amul li dooy waar mooy dañoo jékki-jékki dañu xëy ne wate nañ benn loi 2020 dana jàll te xayma boobu amut ñun nag ci suñu bëgg réew mi ak bëgg jàmm ak bëgg liggéey tax na ñu sàkku daje ak ministre bi pour waxtaan ak moom ci loolu ndax jàpp nañ ne loi bi dañ ko pamte pamtee li waroon na jiitu jiituwul bañ fa demee dañ fa demoon ak ay proposition ay

waaye it dana créer loo xam ne ay taxes lu mën a dugg ci état bi. bii du Sénégal rek ñoo ko jël am na ñoo xam ne seen projection deux mille trente cinq la deux mille vingt cinq pourquoi ñun ñu bëgg tey tey tey tey tey loi bi jàll te li war a àndal yëpp ci ay euh, mesures d'accompagnement àndul ak moom. dafa am ay conteneurs yoo xam ne ñi ngi ci biir port yegsi na am conteneurs yoo xam ne ñi ngi ci bi ñi ngi ci frontières yi fu mel ni post Sukar Ayib fu mel ni. Euh, kaarang dañoo bëgg kon nga jox ñu autorisation ñu mën koo génne jéem ko sax jéem a jaay ndax duwaan dem nañ def suñuy formalité yëpp ñu dañu nag il faut ñu am autorisation boo xam ne si ministère bi lay jógee pour nga man koo génne mu lànk mu lànk loola lañ ca perte kenn xamu ni mu toll xolal pendant trois mois camion yu taxaw bët bu yàlla sàkk nga fay vingt cinq mille francs xolal lool ci ay frais magasinage ak ay frais sur yu kenn xam ñuy muñ rek ñu dem ba loi bi 20 euh, avril 2020 dès 10 jours mu a wax ne nañ dem génne ji loolu en valeur marchande ça avoisine près de 7 à 10 milliards de francs CFA rien que Dakar rek 250 conteneurs sans compter les régions mu ne nañ ko génne ah ñu génne ànd ak daanaka sax perte waaye à notre grande surprise 10 jours lañ ci tek wala 2 semaines mu and ak ay service am dugg ci dëkk bi jël lu bare bare bare ci mbuus yoy ne normalu loi bi da koy tere ma ngi déglu ci journal bi secrétaire am secrétaire général di wax ne 4 à 5 tonnes jël nañ ko ñu japp ne nak jaay doole la ñu japp ne complot d'état la à la limite dañu jàpp ne la sàcc la mënoo laaj nit ki dembo njaay ay centaine de millions mu ñëw dédouané marchandise 10 jours 15 jours après nga ñëw taxaw ne ko loolu nga génne dama koy naw te nga bañoon début bi ne doo ko def ñu topp ci pendant mois complot kon ñun yoon bagage yooyu ñu ngi fi ñëwee ci loi 2015 kon complot lañuy tuddee li ñu def état nag gis na ko di seetaan waxul dara loolu jàpp naa ne jaaduwul te nag duñ ko nangu lu mu ko jaral encore une fois jaral nañu ko xam naa da ngeen jéem a laaj lu ñuy def duñu leen ko wax li ñuy def ñun xam nañ ko lii nag tàmbali la junj la junj doy na boroom xel